ci sëriñ Saaliw tey day mooy bisub cant bi gën a rëy ci li may sant sëriñ Saaliw saa su day daf maa war may sant sëriñ Saaliw bi sepp yëpp bi bisi cant yep day melni bis bi moko jur 17 avril 17 avril 1946 moy bis bi nga xamni ci la dajewone ak Serigne Saliou jëkk a daje ak Serigne Saliou jëkk gis Serigne Saliou jëkk a siyaare Serigne Saliou mooy bis bi gën a màgg bi may fàttaliku ci sama judd mooy bis bi ma ni lu ma am ci àddina ak yàqin juma am ci àllaaxira bisub tey jii 17 avril 1946 mooy cosaan li ci laa daje ak sama sang bi ci laa daje sangu jaam ñi ci laa daje ak Serigne Touba Serigne Saliou Khadimu Rasul moom sax noonu na ma booba deetee tudd saa yu jëkkee tudd Serigne Touba bul ma tudd boo ma tuddee ak fu mu mën doon bul fa tuddee Serigne Touba ndax maa ngi moom day dunu ñaar kenn rek lañu kon leeral gi may leeral loolu tax na ma tudd ñaari tur yi maa ngi koy tuub bon ndax terewoon nañu ma ko noonu na ma foo ma tuddati foo tuddati Serigne tubaa bul ma fa tudd. foo ma tuddati bu fa tuddati Serigne Touba ndax maa moom du ñaar kenn la du kon ba ma tuubee loolu yi ma wax te bëgg a leeral nu mu demee tax ma def ko bokki taalibe yi góor ak jigéen maa ngi leen nuyu maa ngi nuyu bokki jullit yëpp bokki taalibe yëpp maa ngi nuyu doomu aadama ju mën jot sama kàllaama gi bawuma kenn bis bi day day bisu mbég mbég moo xam ni day mel ni lott naa ci man koo wax ndimbalul sëriñ bi sax la am ba ma mën a am teew lu goo ni mën naa ko am ngir mën a wax ndax mbir dëkk bis bi li bu doon ci man daa rëy lool 17 novembre 1946 ah 17 avril laa daje ak Serigne Saliou loolee bis boobee moo ma may may sant Serigne Saliou. tey te xam ni kat dama di tey waaye moom sëriñ bi dimbali dama bu bis bu ne dama koy sant ndax defal na ma dawa bu sukkuri mooy loolu yi nga xam ni ñu bari ci yéen di samay taalube yéen yi defal na leen ko ñu waral loolu mooy mooma ni loo wax maa ko wax Béthio ma ne ko Mbàkke mun ma loo wax maa ko wax loo def maa ko def bakke nekku ci àddina nekku ci lépp Sëriñ Tuubaa ma jàkkaarloog sama taalibe yi neen defal naa leen dawaamu sukuri ma leen yëgal nii booba tey de damay tenkem tenkeme rek waaye man dégg naa li ma sëriñ Saali wax te du ma ragal de di nga dégg leneen lu ma wax de kenn mënu wax du moom ragal ndax sëriñ Saaliyu dey mooma ni becco ma ni ko Mbàkke ma bëgguma ragal bëgguma ko yàkkamti Béthio ma ko Mbacké mun ma na nga xam ni bëgguma ku ragal bëgguma ko yàkkamti boobee sax laa ko ni Mbacké ma ne ragaluma ku dul yow waxi waxen wi taalube la ndax yooyu jamono kat booba am naa sax luy waa daal ragal waaye noonu laa ko tontoo woon waaye ci laa jógee ni git nag dëgër si ni dootuma ragal kenn ci àddina ku dul Serigne saaliw ak àllaaxira ëllëg ragalu ba kenn Serigne Saliou rek laa ragal bis wax naa ko waxaat ko man Serigne Saliou rek laay sat man xaw ma ku dul Serigne te xam naa ni mooy lépp ndax moo ma woon boppam. dama xam li mu doon moo ma ko def ko ak man ku neex loo neex teg ca loo neex loo neex waxe waaye loo ma wax kenn kenn mënuma ci jële Serigne Saliou rek Serigne Saliou Copt Serigne Saliou rek du ci jóg ah jaaree dañ ma nag ci li ñu wax tasfiya dinaa maslaa ak ñëpp dinaa jaxasoo ak ñëpp dinaa weg ñëpp dinaa respecté ñëpp ku nekkit fonk naa la sama digg ak yow la ca war fas naa yéene ak ku mu doon ma doxale ko waaye nañu xam ni man Serigne Saliou laa gëm sama cofeel ci Serigne Saliou laa ko joyal ragalu ba it ku dul Serigne Saliou ragalu ba keneen ndax xam naa lépp mooma ak taalibi nag dudul maye ñiy soxor ñiy def yoo xam ni lislaam nungu ko ngor nungu ko ñu naa sëriñ saali wooyu lépp ak taalibe da ko mayewul ak taalibe moom li mu maye xam-xam akuk taalibe daa bokkul boo xamee ni yàllaay lépp te sëriñ saali ko kookee ak taalibe moom da lu maye liy métti liy métti nit liy ñaaw ñu tuddee ko ñaaw doo ko jaayal sëriñ bi waaye lu rafet lu ne lu màgg lu ne mën nga koo dugal ci taalibe sëriñ bay sëriñ bi mooy sëriñ bi mooy sunu sëriñ ñun taalibe yi ma ko waxee nag. te suya danoo laaj nun nu fonk ñëpp mën a maslaak ñépp mën a ànd ak teral ñëpp waaye kenn képp loolu tawhid may nu xam ne mooy ko képp te moom rekk lay doon bokki taalibe yi rek bu kenn tawat bu kenn kat santunu ñaan naa leen digal naa leen bu kenn tawat nanu bég ndax ak cant kat mënta ànd ak leneen lu dul mbég leneen lu nu ci boole lu dul bég tawane ko day mel ni sunu cant gi dal koy wax waaye dëggul yàllaay lépp loo gis lu ne moomu tamit daa naqaree wax li mu doon lépp waaye bu du jooy dara ci kenn bu nu ko jiiñ kenn ndax kenn mënul ku dul yàlla ndax lu am moomu Euh, man dey sama xol sori nu lool waaye nag bokkuma naa bokkuma ak ñenaa Serigne Saliou nekku fi de bokkuma ak ñenaa Serigne Saliou dem na de Serigne Saliou demul de man de yëg naa ko xam naa ko mën naa ko waat. bu ñu lu am ba kenn naa bu fi sëriñ Saaliw newoon du am bu ko kenn wax sëri Saaliw jógu fi moo gën a teewe lépp te lu am lu ne xam-xam maye na ni mooma ak taalibe moo mayewul ñu di ko jiiñ ndax yenn yi seeni melo Serigne Saliou lépp de kon di tawat dara warul nun talube man day tawatuma dara dara dara maa ngi sant Serigne Saliou te leen bëggee yéen ñii nga xam ni yéenay sama talube yii ma Serigne Saliou booleel te lu ma dal lu nekkat man jàpp naa ni yàllaa ko dogal te man damaa xam ci lu ci bari lu ko waral waaye man day dara naqariwum fii mu ne ko waxee kat ñu mel ni damay maslaa barke Serigne Bamba dara naqariwu ma dara naqariwu ma man mii maa sant bay dakk say bokki taalibe yi maa ngi leen di yëgal nii moo xam ni mel na ni dina gàllankoor lu bari ci li ma mën a wax ndax mbég mi de daf ma fees del maa ngi sant bu baax maa ngi sant bu baax te ñaan Serigne Saliou nu yàgg ko nu yàggee teewee cantam gii te sax ci li xew nag ci réew mi ren tax na sama taalibe yu baax yi xalaat beneen tëralin woo xam ni neex na neexit woo xam ni ginnaaw si tey nii lañ koy doxee cant gi na tas ci réew mi ren ndakaaru la bu benee nee yéenay seet fan ci réew mi fu ko attan nu def ko fa fu ngeen jàpp ni war nañ ko fay def at mu jot nu di ko fa defee nekk sunuy kër sunu biiri kër di sant sunuy cat laajul nuy dagg mbedd di fa toog laajul nuy takki rajo laajul nuy ñaan ay autorisation nañu nekk sunu biiri kër di sant Serigne Saliou di rey sunuy gileem di rey sunuy nag sunuy xar sunuy ginaar waaw Autriche Elan Lama dañ Serigne Touba day lila li ci ginaar ba ci gileem dama ni boo jógee ci ginaar yi ñuy lekk yëpp tépp ginaar laata nga yegg ci gileem

diggante bi leneen lu fi lislaam nangu rek na ci bokk nga ni dane bu kenn xeeb ganaar banaa matu la bu kenn naw gëlëm banaa duma ko rey bu kenn xeeb tànk ki fiftin duubal walaw bi xaddari dirhamin yow yóbbul caay sëñ Fallou Seck mu sëriñ Saliou daa ba profité ci yëgal yëg leen ni waa kër teew nañu sëriñ Moussa Niang sëriñ Moustapha Diaw sëriñ Fallou sek euh, sëriñ Baara Dem ak mboolem taalube ak si nañu sans bokki daara yi waaw taalube yi mu ne ni ma leen koy waxee daa euh, dongoy tërbiye ñu nga fee kër ci fa kër Serigne Touba ci Colobane dafa wàcce kaamil yi am na ñu nekk saal saal bi ci wet gi ñu ngi ñu ngi wàcc kaamil yi alxuraan yi ak jàng xasaayit waaw waaw jàng leen xasaayit yi lewetal leen nag yi giléem yi xar yi béy yi sax buñ ko fekkee waaw na sab-sab xanaa xamulee ni ceebu ceebu béy dara dàqu ko sama taalubéy Touba université ñoo ko fi indi soxnaay da jàllo sama soxna su tedd si dugal na ci ay dékkeem ñoom nag waa Touba université nii rek la ñu dëkkeeg man lu xew lu ne ñu taxaw ñu ngi ci nag yi ñu ngi ci giléeb yi ñu ngi ci xar yi ñu ngi ci béy ginaar yi waaye ndegam wirgo yëpp la la ma Serigne Saliou booleel te ñu ay jàngkat ci wàllu tubaab xeet yi nga xam ni wax dëgg yàlla ñoom lañu xam ñoom ñoo ko fi indi ñoo ko féetewoo ak fu ma mën a taxaw ci àddina ñu fekk ba faak moom jaa ngeen jëf li ma bëgg a wax lépp sama xol fees na fii rek laa ko yemale ah, sëñ Moussa Niang boo amee kàddu goo ci teg yaag sëñ Moustapha jaw ak bokki taalibe yi fi teew ah, sëñ Fallou sek mi ci saraxalu léegi waaw waaw sëñ Fallou Seck bi kii moo daal li xamal Serigne Saliou bu Serigne bi julli kii koy li xamal kii da di sama wëllëri nag moom sëñ Fallou Seck moom moom day sam xarit ah journaliste yaa ngi fi teew ak seeni C'est une outil. ah vous voulez que je parle un peu en français Oui, ouais ouais alors euh, aujourd'hui 17 avril vous savez c'est la date célèbre qui marque l'événement historique que je considère comme historique dans ma vie car c'est la date où j'ai eu à rencontrer Seri Saliou alors que j'avais 8 ans. C'était le 17 avril 1946. À Tasset, dans le, département de Thiès, région de Thiès. Euh, que je considère également comme étant la plus marquante dans ma vie. car elle, me situe dans la première période de mon compagnonnage avec Seri Saliou. C'était le jour où pour la première fois, alors que je n'étais qu'un bambin, que j'ai eu à rencontrer Seri Saliou Khadim mon tout ne s'explique qu'à partir de cette date, de cette rencontre mémorable que j'ai eue avec celui que je considérais comme un saint homme et qui est au-delà de tout ça. C'est où je me mets à parler de lui, les idées, les souvenirs, les événements, le bonheur inextinguible, tout cela qui m'envahit m'étreint. Au point où c'est avec beaucoup de difficultés que je parle de cet homme avec grand tâche. Serigne Saliou Seri Saliou Serigne Saliou tout ce que c'est de sa signification m'a envahi au point où je n'ai même pas la possibilité de trouver les mots pour parler de lui. Mais tout mon être s'exprime à lui rendre grâce. Et mon tout ne s'explique que par l'action de grâce que je lui rends. Il ne faut pas que mon amour vis-à-vis de Sri Saliou, ma foi en Sri Saliou, n'amène d'autres à penser que je ne considère personne d'autre. C'est que Sri Saliou est mon tout. Mais je suis un être social dans un milieu social où j'ai eu à parler de tout le monde et de m'adresser à tout le monde et de vivre ma société. Je suis donc tenu par les règles de la société de parler d'autres. Mais essentiellement et spirituellement, je n'ai dans le cœur et dans l'esprit que Sri Saliou. en parler, c'est difficile pour moi parce que les idées m'envahissent. Le bonheur m'étreint. Je suis tellement enveloppé par la lumière de Sri Saliou qu'il me paraît difficile de voir autre chose que lui. maa ngi sant Serigne Saliou maa ngi bég nag ci sama taalibe bopp yii ñii nga xam ni ñoom la ma Serigne Saliou booleel man propagande ma kenn dew ma ci kenn di la wut li ñu def ci man li ci Serigne Saliou def moo xëcc ñëpp ñu ñëw ci man waaye dew ma fenn man du ma propagande kenn. man la def may njariñ ku ñëw ci ànd man yëg ko ah boo ñëwee te gisoo ko ah yaa yaay xam propagande ma kenn sama kër laa toog demuma fenn waaye Serigne Saliou bi njariñ te njariñam la mu am lu mu fi def Moi, je jépp man pas wax lepp j'ai peut-être trop dit même mais je considère que je n'en ai pas assez dit car je ne peux pas tout dire je m'en arrête là euh, xam nga dina fait. Mama yu mel ni ngay wax te do faté lu lu essentiel tuddoon na len waye kat dina tamu saku, sakku sa mbokki taalibe yi jóge Touba ñi ma andal ci Serigne saliw ñu jox len radio bi ñu wax ci serigne Moussa ñang bo de wax ji waxat gi mo ndax lo ci waxati tam day xurmet rek waaye dudu am solo ndax li ma ta wax lepp wax ngoko li ma ta def lepp def ngoko li nga bëgg ëlëk itam wax ngoko sidig ak Serigne Saliou wax ngoko sidig ak lu wax ngoko kon nak da nga nuy sagal waye sa wax ji mënu no wax yenn wax jop joju doon ko du man sax te itam wax day toll foo xam ne fii su wax ja rafetee nga leeral ci lu bari man ngaa jóg aw ci weneen yoon wu bokkul ak loola su ko defee yow may wax nit ñi sax duñu la mere waaye dañ lay jëppi kon ni ma ko gisee su yóbboo nga ñaan rek te xam ne cant gi moom egg na wasalaam jataay bi daf may fàttali jataay bi daf may fàttali sëriñ bi xam nga tëbuma tëb di nuyoo damaa tëb tëb rek wax li ma bëgg a wax waxtaanuma ci sëñ bi waxtaanuma ci taalibe yi diggante sëñ Béthio ak sëñ bi ci laay waxtaan bu la neexee ma tàmbalee waaw ah? bu la neexee ma tàmbalee Kaolack bu la neexee ma tàmbalee Touba bu la neexee ma tàmbalee fii fi ma neex nag mooy mboo mboolem sa taalibe yi ni mu toll ba ma sëñ Saliou di booleek yow ba ma sëriñ Saliou di booleeg yow booba soxna mboo si Juuf ak chauffeur bu ñuy wax bàcc lii dégg nga ak ma penn mbay ñett ñii képp ñoom daal la xam ne booba kenn ci ñi xamul ne booba sëriñ bi dafa maa yónni ci yow ay yitte nga dox yitte ya ba mu ba mu ba mu des ma ne la demal ci taalibe yi nga ni ma bu ma boolee ki taalibe man fonctionnaire laa sama weer laa am bu ma dugal ci taalibe am ku la ni taalibe yi sëñ Tuubaa yi boo ci ëppalewul ëllëg eh, kenn du la ci ëppale te da fa danga nga tabax jumaa da nga da sañ cub dëkk te booba yow nee nga bu ma boole kenn ndax xawma ci taalibe yi kenn ma ñëw nag ci sëriñ Béthio mi na ngeen xam ni dafa muritu bañ wàcce ko lan moo di murit du caage ne dem ca toole di bay ak a jàng murit mooy na nga def ba sàkku ngërëmal si sëriñ ba jot ca sëriñ Béthio mi jamono naqari woon na ba lu sëriñ Saliou soxla moo ko indi di ma fa yónni ba mu ba demee ba xam ni mënatumaa ñëw moom muy ñëwal boppam di di di dàkk li sëñ bi bëgg di ko andi di ko andi ci la ko sëñ bi di ko gërëme di ko gërëme di ko gërëme ba bu doon daara day wàcc ñibbi te boobu kenn jébbuloogul ci moom mu ñëw ne ma sama soxna sii di Mboose Diouf day dama ko bëgg lool te du bu ma ñëwee rek damay nuyoo te du moom nuyoo fexeel ba ma ba mu nuyoo ma wax ko sëñ mu ne ma nee ko kum àndalati na ñëw agsi ci man ca la tàmbali ku jébbulu mu ne ko boole naa la ak sëñ Bocc foofu la boole gi tàmbalee boole naal ak sëñ Béthio nit ñi itam di yëg ni ku ànd ak sëñ su demee dana gis sëñ bi lépp man maa koy dox di ko def di ko def di ko def ba mujj ku ñëwati mu ni la ndax xam nga sëñ Béthio boo jébbuloo mu ne la nga ni ko waaw mu ne ko demal ni ko boole naa leen ndax yitte ju mu amati mu yëg ko nga yëg ko kon boole gaa ngi tàmbali na ngeen xam ni ba ba sëñ ba ba leen sëñ bi booleeg sëñ Béthio fekk na moom mu am ngërëm ba noppi dégg nga ba ci loolu lépp amee nag ba noppi a ah, sëriñ bi moom du ku ñuy waxtaane ci ji jamono ndax boo boo waxee fii kii weddi fii boo gisee nii kii gisee nii ba tax ni lii mu wax dara dara dara dara mutu cee teg comme ni Moussa wax waaye eh, foofu sëñ Béthio fii la sëñ bi booleek nit ñi ci jamono jooju maa ngi teew leneen la ca des xam nga ko ma xam ko leneen la ca des baatin du lu ñuy waxtaane baatin du lu ñuy waxtaane waaye nag dees ko xool gis ko dees ko làmb daj ko waaye am na mandarga mandarga yi mooy ñii mooy lii nga gis lii ku ne xam na ni dara la la ko ñaareel la ko ñetteel mooy nit ñii ma fa gis Serigne Saliou rek laa gis ku ci ne sëñ Saliou def na ci yow loo xam ne yëgal nga ko sa bopp te cër la boo xam ne bii soxlaalul soxlaalul beneen cër bu dul biñ la jox ku ne nag yëg nga ko muy sëñ Béthio muy keneen ku fi ne ku ne yëg nga sëñ bi cër bi mu la sédd yaa ko yëgal sa bopp di ci dund leneen la ci des itam eh, jërul guddal ndax waxtu wi kii na waaye lenn lenn loo xam ne sëñ nangeen xam ni sëñ bi dencalu ko sëñ Béthio lu lu mu mën a doon moom mi maag moom jaar nañ ca daa am loo xam ne nag du waxi fii waaye nag saxaar lu mu am am doole ci kaw raay bi rek la bu bis buy wàcc raay bi rek doole ji jeex wasalaam ndax moom aw doxinam dafa mel ne lii sëñ bi waxoon ne dem ci sa borom jafe na lool te yomb ndax nee na li ko tax a yomb boo jëmee ci moom dalay gàttandu waaye waxtu woo geesoo rek nee na mu balaag la nga geesu mom nak daal jóg ne dann sëñ Saliou rek geesuwul dara li maye sa borom moy mo len di maye mo len mo koy maye mom moo ko wax moy maye ñu bax ñep wa moy ndax lépp sa borom rek lépp yàlla rek comme ni ko cheikh bi waxoon yel ben cheikh bi mom dafa jóg rek def li seigne bi li seigne mag bi wax ne dammi wa ahli wa awladi lakum abadan habdan qadiman lahum muskana li sanada nga xamne dafa dafa dane sa borom sama direct yaram wi ak sama ñoñ ak sama yaram ak sama lépp lépp def naa ko ñu naa ko muy jaam ñeel sama borom sama ma sëñ bii tamit noonu la def ci Serigne Saliou dem na ba fu mu jógee ci Serigne Saliou kenn mboolem ñi fi toog dëkk ci kër ga kenn ku ne mën ngaa nettali ay xisa diggante Cheikh bi ak sëñ Saliou ba ëllëg te kenn du bokk ak sa morom booy kii te yëpp doon yoo mën a waat te mënoo faa nettali li mënoo li sëñ Saliou la mbooloo ma doon bari bari amul kenn koo fu mën a nettal ñaari xisa am bu ko ñetteel moom mii képp te lépp na doon doxeek moom rek mooy doxin yooyu ne mooy ne ko dànn rek boolewu ko dara eh, sëñ sëñ bi wax na ba teew naa mu ne ma sëñ sëñ sëñ Béthio de damaa yemale wut ak dara ma ne fi ma teg waaye nag waaye fi mu ne defe naa ne waaye nag jooje bu ma xoolee mbooloo mi koy topp ak ni ñu koy toppee danaa xam ne ah mel na ni de fay na ko ba wis ko yaakaar naa ba mu koy topp moom moom sóoraale wutoon li njortu wutoon lii déedéet sort lii moom sóoraale ko ndax lii doomu aadama moom fi mu ne par li ko fi ko sëñ bi da fi ko sëñ bi teg ak li mu ko defal dafa àgg foo xam ne doomu adama da ko mënta njort waaw ndimbalal sëñ bi la la amoon rek xëy na ba mu jébbaloo rek ne ko dann moom boolewu ko dara waaye nag mos sa boole sëñ beeg lenn day mujj sax sëñ bi bëggul ku ja kuy àggale yenn ndigali ci sëñ Béthio ndax am na loo xam ne bu ko soxlaa bëggul sëñ bay ci ko ndax bu fekkee ne palaat bii la soxla dana fa indi lu ëpp lal gi ngeen lal waaw <laughs> moo daal wax dëgg diggam ak se sëñ bi neexut a neexut a waxtaanee noonu daal nu ngi fas yéene nii rek lu mu nekk fekk ñu ngi noy ñu nekk ci ak moom lu ñu yëg ne sëñ Béthio nga koy yëngal ñu nga ca loola lu ñu ca fekk xam na ne ci ci sëñ Saliou rek lañu ñu oh. waaw lu ñu lu ñu ci daal xam nañ sëñ Saaliw rek la ñu daal jërë ngeen jëf